des demeurés nee naa la mënoo localement localement j'ai dit. c'est intéressant sëñ Saliou dans parce au nom de l'immunité parlementaire. mom la la non xam nga non. d'accord mais xam Matar aussi mom Matar ça lui a fait du bénéfice euh, de com. Matar est sorti de l'anonymat, mais qui connaît le procureur autosaisir Non, le cas où sont que y Mandaw yo tamit. Mais mon frère, le député à l'Assemblée nationale, il est irresponsable. Waaw Mandaw yo tamit. Je parle de Sonko. Oh, Mandaw. Je parle de ubbi enquête. Mandaw. Hein? Na procureur ubbi enquête. Mandaw may ma wax la. Mais naturellement. C'est-à-dire bu amone tay nee naa la nee naa du ci jot. C'est-à-dire c'est l'information, c'est entre la banque, les autorités judiciaires et la présidence de la République. C'est-à-dire foofu lay tourner du ñëw fii gis nga loolu su amoon le lendemain c'est le procureur de la République qui organise une conférence de presse toog teg affaire bi mais quand même tu, tu penses réellement non xam man man nee na dama ci sax dama am lu metti parce que xam nga tax franchement c'est-à-dire c'est-à-dire Matar ma fait perdre du temps ci loo xam ne nii man non xam nga gis nga am na loo xam ne si tu maîtrises l'information financière hmm. wallahi azim yenn yi sax doo ci wax c'est-à-dire même yenn yi soo ko déggee sax da ngay romb dem mais quand tu penses que nag ni nga mën a demee ca boutique ba daan ne naar bi dencal ma sama dix mille vingt mille francs noonu nga jàppee ne peut-être nit mën na kii lool alors yow mi nga wax yow leer li nga wax du dëgg. sëñ may ma tamit nag jibi waa tamit du ma financier mais may ma rek may ga lay jibi yow tamit xam la pourquoi ce débat moom ma la waaw dire xam nga moom boo déggee sax argumentaire am danaan yéen yéen Guy Marius Sagna et consort yéen yéen a fi jiiñ xaw ma Aliou Sall bu mu dul génne yéen wax ne ñun ay sàcc lañ yéen tamit bii donc li nga wax léegi contrefaçon rek. Hmm, et rek c' est c'est-à-dire c' est un fait divers pour divertir les gens. que les gens man man de li ma leen wax nee naa leen. Hmm. man même waa Benno li ma leen di considérer li ma leen di conseil mooy. Hmm. faites focus sur pare parrainages yéen waa Benno yi. moo gën parce que xam la ça vous fait perdre du temps te duñ ci am dara. waaw parce que waaw waaw moom laa doon ko ne ak seen 5 millions sax parrainage. <laughs> parce que xam naa léegi war nañ egg chiffre 5 <laughs> millions donc ñoom nañ def focus seen parrainage moo gën. d'accord xam la léegi quand les gens disent que oui Sonko ay. plainte pour pour pour faire quoi plainte pour faire quoi plainte de plus Sonko ay sept plainte am ña ngay nelaw fële de ba léegi. Hmm. sept plainte ba léegi moo tax ma ne xam nga même sëñ Matar. mom bo commencé ci mom rek mom la ko seigne Moustapha Cissé Lo wax bobu man de bu ko leeraloon ba paré vraiment ñu bi man nañ ko le mais xam mom dafa am ben mbir mu ñu tek ci kawam te ba légui seigne bi waxu ci dara mom la la wax xam nga gis nga taxaw di wax parce que simplement tu penses que tu as l'immunité parlementaire tu as l'immunité présidentielle parce que tu appartiens à un régime ou peut-être on a érigé l'impunité en en en dogme su la neex nga wax parce que dara du ko ci fekk auparavant des gens sont passés ici lan la Sori Kaba waxoon moom dane ay malet mallette de Russie mhm. Ousmane Sonko en a reçu je passe par le Oil récemment à la 7TV qu'est-ce que Moudban a dit des cadres de Pastef là affiliés à des qui salafistes bénéficient encore de nangam nangam ça fait pchit encore c'est-à-dire que finalement bu ñu teg mu la xam fait bulle moom day rafet Mm-hmm. bi aussi bi lay nek rek les gens ont mais man lima metti métti c'est-à-dire on a héroïsé Matar Matar lolu bëggoon on en a fait un héros et cetera mais Matar mom leer na ko ne jusqu'à l'extinction du soleil mu Matar xam na ne xol lamuy muy non. mais Serigne bii du jàll de. non bii du ñëw rek jàll euh, parce que dañu laal lu sacré par contre. wa man xam li ci metti nak non non c'est-à-dire non c'est-à-dire li ci metti mooy. waaw moom laa li ci metti nak mooy. Hmm. et puis loolu aussi caat. dafa yéex parce que xam nga je suis depuis longtemps. j'ai dit on a manqué de respect à la communauté mouride. parce que si tax suñu démé communauté mouride ñom dañ leen di jox xaliss pour ñuy voter pour nous soutenir Ousmane Sonko ça dit que donc les mourides sont corruptibles les mourides sont corrompus te képp ko xam mouride yi xam mouride jariñu lan mooy mooy mooy seen devise. Mouride euh, soxla woon 12 milliards. moom moom laa wax. ils ont cotisé 37 milliards. moom laa wax moo tax ma ku xam. non cest à lañ cay lañ cay wut derrière. Hmm. lañ cay wut derrière xam naa gis nga. il si may ma rek ñoom. gis li ngay wax c'est bay ma rek ma jibi sama analyse la waaw waaw waaw jibi su la neexee après nga ne ma c'est grave. dama ne dama ne Mouride gis nga jibi man de camp bu mu mën a far fu mu mën a nekk am na loo xam tey boo ko jëlee tuuma teg ko fenn ci sëriñ si ma ma ma dal sa kaw. ah parce que waaw nga teg ko ci kaw sëriñ yi ma dal sa kaw. ñaan ñoo tuddee mouridisme secte. non may ma rek dama ne. ban homme politique moo ne. non mouridisme secte waaw waaw ji bu ma diverti waat tam bàyyi ma may gële sama sama analyse waaye. dama ne dama ne et puis gis nga tu sais que lii c'est pas la première fois. boo xoolee temps sañ sëñ Abdou Lahat le journal Le Monde moo fi njëkk a génne moo fi njëkk wax ci murid yi daal ne ay pacha lañ et cetera il exploite comment le comment ay teen talibé yooyu et puis il roule en bolide à l'époque ba sëñ Abdou Lahad mos na ci sax addu ci mbir mi. d'accord donc ñoom ils n'ont fait que revenir à la charge mais li ci metti mooy cette fois-ci l'article n'a pas été signé par un journaliste de du Canard enchaîné c'est quelqu'un boo xamante je te dis man li ma la wax nii. gis nga buñ ko gis nga buñ ko gëstu woon. article bi Sénégal gi lañ ko bindee pa ko foofu. ah bon billaahi article bi Sénégal gii lañ ko bindee laa wax posté ko foofu nañ ko nañ xool nañ ko topp Sénégal gii lañ ko bindee ba pare posté ko foofu parce que ah, xamul tax dafa am ay répondant après parce que dafa am ay développement yu ci am yoo xam ne pour man ça c'est la suite de ce qu'ils ont dit te jàllul lii ma la wax lu leer la nee naa la fii lañ ko bindee c'est pas man de je défie laa wax je di j'ai dit kanaan enchaîné lan moo tax ñu def ci JC très moo tax peut-être <coughs> euh, il fallait il fallait une enquête. Hein? déedéet non non JC c'est un pseudonyme c'est un pseudonyme. JC mooy pseudonyme canal enchaîné. mais mais mais bah, la la bah, euh, en tant que société civile s'il vous plaît. Ah, ah, ah, ah très bien. la société civile aujourd'hui euh, peut-être yaa ngi doon bëgg rebondir ci ci li sëñ wax nga répondre en même temps ci question boobu qu'est-ce qu'il faut concrètement wala lan préconiser pour régler définitivement cette question sur le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques loolu société civile da cee tënk ay documents documents documents assise nationale yi def ci ay documents documents documents jamais les partis au pouvoir n'ont joué le jeu c'est lieu de. question de volonté politique là. C'est le moment de poser ce débat parce que nous avons une élection. le prochain président il n'a qu'à prendre des garanties. très bien pour xamal sénégalais ni lii day jeex d'autres egg niveau effectivement mais moi ce que je voulais dire moi, depuis quand on donne du crédit à un journal étranger au Sénégal. BBC faut fi documentaire. Ouais, mais, mais BBC bi fait documentaire également. mais le parti oui mais le parti au pouvoir qu'est-ce qu'ils avaient dit. mais sauf que ma sauf que BBC la journaliste qui l'a fait dafa taxaw jox ko su sax wax def reportage xam la oui non dafa kooku dafa taxaw ne man la xam nañ journaliste bi. non dafa def reportage mais nee naa la keneen posé ay questions fi ba àddina tukki. jii doo ko xam. Ah, donc je veux dire par là que xorom je veux dire par là que BBC quand l'article est sorti documentaire bi génn la dame elle a assumé que moom moo ko def. dafay interview sénégalais gis ko mais les ces gens du pouvoir qu'est-ce qu'ils ont dit li amul pourquoi ay étrangers ñoo ñëw di ñuy wax li xew ci suñu dëkk joxuñ ko ben crédit joxuñ ko ben crédit mais aujourd'hui débat de fond mais joxuñ ko crédit crédit mais dem na quand même ci yoon au moins. non demul ci yoon def na def nañ semblant de yoon def nañ semblant de yoon il faut ñu bàyyi caaxaan xam nga lolu jour match Sénégal la won ñu indi ben gars mu ñëw tok naan ataaya ba 19h mu ñibbi ñu ne ñu ne y rien <laughs> donc xam nga il faut que il faut que il faut que ñu respecter Sénégalais aujourd'hui mhm. on un milliard Covid 1000 mille milliards Covid. fonds force commune loolu xaaruñu Canard enchaîné ñoo wax ñu ko ñun ñoo ko xam fii suñu ay corps de contrôle de l' moo épinglé ay nit te ba tey enquête jubul jàppuñu kenn ñu jël ko jox ko dig muy enquête ay second couteau ay directeur ay directeur programme lañ nekk di enquête boobu tey jàppuñu kenn autant d' autres milliards yoo xam ne suñu ay corps de contrôle de l' moo leen jàpp épinglé leen te ba tey kenn leeralu yooyu noonu ma jàpp ne suñ demoon ba am lu toll ne tarafatal ay ni waxuma la Ousmane Sonko dama ne la ku mënti doon koo xamante ne da nga contre ce régime là suñ amee lu toll ne virgule duñ la ko may waxatuma la ak ay douze mille mille ay douze milliards yi war a dugg ci biir réew mi c' encore pour montrer à quel point cuune état bi parce que Juan Branco dugg na ba génn Mauritanie moo ko jàpp mooy mooy wane ne suñu frontière yi ay ndànd fay fay la ba pare suñu frontière abstraite mooy frontière yi nga xam ne doo ko gis mooy fu xaalis war a dugg wala satellite wala renseignement wala nangam foofu it ndànd fii foofu dañ ko foofu dañ ko ceinturé de. non dañuy nax sëñ Tallé bu fekkee onze milliards dugg na fi. dërëm du dugg ci Sénégal te laa la wax waa xamuñu kon léegi lan mooy problème bi. lu leer la ah, la am nga sa argumentaire yëpp si loolu moo ko teg kan la ñuy fooyee wala bu ko daanalee rek nga dellu si ne ah, maa ngi ñëw ci yow euh, Bey

Amadou Ba a reçu la société civile en tant que premier ministre. ne ñoo leen ñu waxtaanee ko ñu xool fu ñu def mu jox ñu ay garantie ne enquête bi dina jib yéen ñëpp yëg ngeen ko fi. ba tey gisoo ku ñu jàpp gisoo ku ñu épinglé gisoo ku ñu jàpp ku ñu woo sax ne la kaay nga wuy si. ci sur cette affaire alors que mi ngi fi tege donc ñun ci question yi nga xamante ne nii nekk na à nos portées à notre portée ñu xam ci lu leer xam les tenants et les aboutissants ba pare mu tenir la route ci question yooyu la ñu nekk plutôt que ci loo xam ne nii divertissement la wala réponse à un candidat la wala réponse politique la ça c'est des réponses politiques yoo xam ne tegwul ci dara bu gars bu waa Pastef ne ana lu tax Amadou Ba nekk milliardaire ñoom ñu ne ko yow tam jël nga ay xaalis tër société civile am na jot dugg ci xeex boobu noonu naan da cay wax duñ ko def mais par contre duñu ñu nangu nag qu'on prenne un débat bo xamné amul ben sens indi ko ci espace public bi surtout que liñ ci bëgg def jaarale ko fañ ko wara jaarale yoon du jall suñu suñu def sen ay guerre politique ils n'ont qu'à le faire sen bir ñom mais buñ ci laaxaale li nga xamante ne ni ay entité la yu sacré au Sénégal duggal leen ci dinañ ci di ci tapalé sen ay tapalé pour mëna wëyel sen ay wax parce que da ngeen gis ne que la question de de la cohésion sociale. mais cohésion sociale amatul Sénégal tout le Sénégal. Ah le régime de Macky Sall a brisé le tissu social depuis. ba li détail même ci aide Covid bi sax da ngay diviser les Sénégalais ci aide Covid bi rek dafa le Sénégal en plusieurs parties. courant il mu a encore Sénégalais en plusieurs parties ça dit dire que régime bi nii amul amul tout ce qu'il a réussi à faire c'est de mettre le Sénégal ci le kaw je plains le prochain président du Sénégal. qui dit en 10 ans gaw mu réaliser dara gouvernement de transition non parce que. 12 ans 10 ans. on a perdu énormément de temps sur beaucoup de choses beaucoup de valeurs beaucoup de trucs ils ont fait le culte de la médiocrité le mensonge du développer entretenir mais on va où quoi il faut que il faut sénégalais les vraies questions ci ñun fan lañ jëm ak ñi et que inshallah mhm. Mhm. ñu réfléchir bu baax a baax a baax a baax ci ban profil de candidat la ñuy fal élection yi di ñëw parce que toutes ces questions là daf ñuy rattraper. waat il faut que nous taxaw ci sénégalais ça c'est important parce que 2024 c'est un tournant décisif donc il faudrait quand même que nous nous bu euh, euh, pour nous diriger le Sénégal et c'est important aussi li euh, à chaque fois à chaque élection cette question revient et pourtant président pour taxaw da ngay taxaw le financement des partis politiques et suñu toogee on voit que par exemple c'est autre chose peut-être manque de volonté politique Là, ça arrange en quelque sorte yenn pour nous mener euh, épée de Damoclès. On, va essayer de comprendre tout ça. Euh, mais l'Ingawar, c'est très important. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui euh, Parce que ça fait rire aussi. ça, fait rire. Si nous ne que lettre président on peut être d'accord que la femme a ay raison d'état a une question de sécurité Il y a un dossier sur la place publique. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à des preuves pour justement guinder Sénégalais face à cette question non, non, en fait, moi, sur la question de la lettre, man yooyu fi ji noonu six mille milliards def nañ fi ay conférence de presse duggal lañ loolu ci ci xelu nit ñi ba ñu jàpp ko ñu ne demande sociale wax nañ fi sax ay compte Singapour dégg naa sax le procureur Aline Ndaw nee na boobu moom yëgu ko woon wax nañ fi ay compte Monaco wax nañ fi bu ne après finalement la montagne a accouché d'une souris mënuñu fi teg benn preuve boo xam ne génnee nañ ko mais je crois que bu fekkee dañu nekk si état bu sérieux nee nañ am nañ lettre bu Ousmane Sonko bind nañ ko génne bu ñu ko amoon nañ ko génnee ñu wan ko sénégalais wan ko opinion un état sérieux mënul toog ay flux financier am ci jamono ji fi mu toll mu mën a dugg ci réew mi nga bàyyi ba mu egg si mënoo koo génnee mënoo koo wane. donc je crois que euh, après nag nekkoon nañ ci benn phase de neutralisation politique de liquidation politique de démantèlement politique. léegi dañu nekk ci beneen phase de de diabolisation politique donc pour man je n'accorde pas de crédit ci yenn kàddu yoo xam ne surtout ci ñenn ñi nga xam ne ci ñoom la jóge j'ai beaucoup de respect pour tout le monde dans ce pays ku mu neex bu la neexee mën ngaa yor sa xalam di xalam bu la neex nga yor sa riiti di riiti mais li Pape Diouf way euh, piano mind sénégalais ils sont assez intelligents ba kenn du piano ci seen ci seen mind beneen bi euh, tey dafa war tax sax ñu poser débat bi ak acuité on a eu ñaata candidat 296. cent caisse de dépôt de consignation dégg rang la woon quoi man boo ma yeewee na ma indil un million yaa ma indil problème bu dëgg légui lutax mu wara nek un débat fondamental bu ñuy régler déjà en 1984 Abdoulaye Wade proposé woon bu mi nek opposition loi bo xamni ni jëm na ci lolu mais duñ ko régler parce que tay parti au pouvoir fan lay jëlee xaalis bu muy des fonds politiques non lañ ko tuddee bu cotiser xaalis bu cotiser c'est de l'argent public DG bi dina cotiser ministre bi dina cotiser loolu ñu cotiser est ce que ñoom ñoom ñoo ko fan lay jógee ci gafak askan bi lay jógee donc man pour man euh, nekkuñu ci débat bo xamni dañ ko wara régler mais dañu nekk ci débat bo xamante euh tay Ousmane Sonko après tout ce qui lui est arrivé tout ce qu'on a mis sur son dos tout ce qu'on a mis sur lui au-delà de cette bataille d'opinion. Maintenant, quand tu me parles de canard enchaîné ou canard déchaîné sur Ousmane Sonko, c'est pas. Keroog bi nga xamante journal journal anglais yi wax nañ ci pétrole bi da ngeen koo weddi woon ngeen journal anglais la. mais si ñun savons xam nañ comment ça se passe wax nga ko ci ces propos France ay intérêt lay l'école bu leen leeree ni kii doxul ci intérêt bon à la place de canard enchaîné on va avoir un canard déchaîné. Et comme euh, c'est un froid de canard, nous, on ne gobe pas. Donc, pour man, le plus important, moi, c'est Hall. C'est normal, ministère de l'Intérieur, moi, moi, je ce parti. Sénégal, il y a parti. tu sais que période il faut mais tu ne peux pas dire diaspora raison diaspora député. Nous, ñu participer à la vie politique participer à la vie politique signifie l'engagement militant l'engagement militant Nous devons ñoo dañuy cotiser ku si c'est ce parti ci say vente de cartes, ci say activité Y en a marre a une période boo xam ne dañ doon jaay ci seen ñaari junni seen yëpp jënd ko mën nañ def seen activité c'est encadré par la loi mais sur cette question euh, vraiment y a y a des plumes yoo xamante ni moom euh, voilà lu jarute liir jarul sonal sa bopp bu fekkee ñoom am nañu leer nañ jël bataaxal Ousmane Sonko te man gëwuma ni Ousmane Sonko dina dem di bind Macky Sall pour ñaan ko loolu bu doon loolu la kay na ko bind ci yeneen maintenant bu dee am nañ ko nañ ko génne maintenant ce qui est dangereux et grave dans ce pays dañ dem ba tàmmal ñu loolu mooy sosalaate bi mooy indiwuñu débat d'idée indiwuñu débat de programme posé wuñu député boobu li mu waroon posé yan solution la ñu war a indi ci ndaw ñi nga xamante ne bëggatuñ toog seen réew taskatu xibaar yi mag yooyu nga wax aussi mag qu'ils sont lan la ñu waroon posé yan débat la ñu war wax nan la ñuy saytoo programme gars yi bugaan nee na am na programme ñu woo ko saytu programme am xool ndax li muy wax mën na nekk fan la koy jëlee fu mu koy duggal ñu ñu ñu ñu relever niveau bi mais su fekkee ne nag gars yi dafa am ñoo xam dafa am euh, ñu ñuy waxal am nañ ay mercenaires mais aussi am nañ ay légionnaires donc c'est ça ngi loon daal sëñ euh, suñu déggee tout à l'heure euh, Djibril lu mu wax euh, nee na bokk na peut-être détenir yenn preuve bokk na li tax ñu tas lii di parti Pastef est-ce que mën nañu accorder loolu mën nañ ko am suñ ko non c'est c'est le militant de de la paire qui parle quoi C'est le militant du Pastef. waaw d'accord un problème waaw. mais la démocratie c'est ça. oui je sais. je dis oui un problème. <laughs> c'est-à-dire pour wax rek sëñ Djibril que ne je crois que peut-être une édition spéciale pour le canard peut-être que la <laughs> mais en tout cas le 7 juin 2023 c'est hmm. c'est clair oui ça clair. L'opposant qui se réclame de l'islam local mourit, est également partisan de la peine de mort et de la criminalisation de l'homosexualité ce qui entre autres lui vaut l'appui des frères musulmans en mars 2021 après une première arrestation de Sonko, le leader frériste égyptien Saber Machour a appelé à le soutenir sans réserve. L'argent du Qatar inonde le Sénégal pour convaincre les mourites de soutenir Ousmane Sonko. Si, si, exactement, sans mm-hmm. Et puis, de dire que, souligne, euh, inonde, le, Sénégal pour convaincre les mourides de soutenir Ousmane Sonko, souligne un diplomate marocain alors que plusieurs sources françaises susurent la même chose. Et ce qui est, ce qui est grave dans ça, depuis le 7, juin, mm-hmm. tu sais que cet article-là n'a pas été signé. Ben, connaissant les méthodes, je connais bien le canard enchaîné parce que c'est un journal que j'aime bien. Mais tu sais, quand l'on l'a dit, mm-hmm. initial, JC, l'on JC. JC ku yàgg a Canard. di nga xam ne JC mooy Jérôme Canard. Jérôme Canard mooy kan c'est un pseudonyme bu ñu créé collectif. nga xam deux fois dans les rédactions dañuy bind loo xamante ni peut-être gars yi xaw nañ ci jiixi jaaxa ni xamul kii. ñu def ci Jérôme Canard moo ne ça n'appartient à personne ça n'engage personne. su boobaa bu ñuy ci dara di am aussi directeur de publication bi rek lañ ñuy woo JC moom lañ ci def. c'est pour dire que ñoom ils n'ont même pas. ce n'est même pas sérieux. ils n'ont même pas xool. Ils n'ont même pas Non, moi je connais le style du canal. Ça, c'est pas, ça, ça, c'est pas, pas, pas, le canal, enchaîné. Ça, ça, le mérite d'être clair. Ah, c'est personne. C'est personne. Et le journal n'est pas responsable. Non, non même rek. Le journal est responsable. Moom là, là, même là, mais dama ne mais dama ne man ku xam C'est méthode d'investigation. moi je connais les grands investigateurs yu Nekfouf. C'est un article dañ koy investiguer signé. ko te li li page contribution la page opinion fa lañ ko yóbbu page opinion. ba def ci JC. Et tu sais, la même chose s'était produite le 12 janvier 2019 avec Toloy Oil. Mhm. L'Observateur, Dakar Actu, CNews, je crois d'autres sites avaient publié ça. Bonne fille publié les 195 000 dollars de Toloy Oil. Mais bon c'est tu trahis le matin. Ça veut dire que tu dis que vraiment le leader du Pastef est complètement foutu. Ah. Avec des revues de presse enflammées mais investigation après on s'est rendu compte que ah, est-ce que xam nga source la anonyme dans le journal Modern Ghana mm. ci bind une contribution contribution moy page yi bind envoyé ñu ko bind ben ko fa ba di journaliste britannique bu Michel Madsen Michel Damsen renversé mm-hmm. Mat Sène biñ ko interroger mu lire ko daan ne moom tur bi jege naa turam trop. mais lii vraiment ce n'est même pas elle. on a interrogé Bernard Cazeneuve bi nga xam ne moom mooy la com de de Tullow Oil mu il n'a jamais été question de financer qui que soit ñoom seen dërëm ko jox kenn. et l'affaire s'est éteinte comme ça. ça a été une bulle médiatique pendant un certain temps et puis xool tas lii 7 juin la woon. te loolu ci ma mooy Madiambal Diagne yamul foofu la 13 juin ñoom dans le quotidien SN bind nañ ba yokk leneen non loo xam dañ ko yokk ba pare wax ne ñoom ñoo wax loolu c'est-à-dire yokk ci da dañ ci bind yokk la ñuy bind yokk moom na toog wax ko parce que mi ngi ci le quotidien SN du 13 na ko nit ñi vérifier nañ ko bind cest à lañ ca teg ba wax ne tarix ramadan moo wax lii ba tarix ne wax dans la bouche de tarix ramadan ne moom day menacer le mara bu mourides quotidien SN j'ai dit du 13 juin du du du du 13 juin bon, on ko ku xool leen ko. loolu lañ donc quoi loolu ba ko ça n'a pas eu d'effet. on a changé la stratégie cette fois-ci il faut mettre ça dans la bouche d'un parlementaire à l'Assemblée nationale. pourquoi et on, a fait passer ça par Matar mais comment Matar ko xam il ne peut même pas lire un euh, comment dire Ben kii bancaire mënu ko lire. Non, je vous assure, un document bancaire, madame, nous lire. Et quand tu sais, aujourd'hui, depuis 2001, avec les événements du 11 septembre, comment les choses ont changé au niveau, c'est-à-dire des transactions. franchement, ne mhm. débat comme les li li dire tout ce qui se trouve derrière à tous les instruments les organismes qu'on a mis en place nee naa la yow banque boo fa demoon tey mën la di retirer 2 millions immédiatement immédiatement da xool dinañ la ne may ñu 5 minutes wala 10 minutes di nga gis ñu dugg génnaat. parce que aujourd'hui dañ ne xaalis mënoo ben am na benn seuil boo xam ne mënoo koo déposer wala kii te non seulement xool. on parle de 5 millions. le client da xool dañuy dañu wut ay information ci moom su fekkee ne par virement la aussi non seulement virement yooyu dañuy xool le donneur d'ordre kii kan la le bénéficiaire kan la su fekkee ne y a un soupçon là de soupçon de déclaration rek bu ci amee la banque est tenue est tenue j'ai dit d'informer la SANTEF kooku boo liree la décision 26 de l'UMOA moo ci nekk. non même waaw yenn somme yi buy ñëw sax. moom la wax non dama ne la c'est-à-dire même banque bañ koy jaarale banque booba ci boppam ñoom seeni loi permettre leen loolu en France boo demee l'ACPR. Moi, moy gérer loolu def comme les scientifiques def FI. bo démé Qatar aussi il y' a un organisme au niveau des banques loolu la et puis xam nga so dé wax lolu comme si tu prends les Sénégalais pour des demeurer. néna la localement localement j'ai dit c'est intéressant Seigne Saliou dans moom laa la au nom de l'immunité parlementaire. moom la non xam nga non D'accord, mais xam nga Matar aussi Matar ça lui a fait du bénéfice euh, euh, de com. Matar est sorti dans l'anonymat ma kii connaît. na na procureur autosaisir non le si cas où Sonko yeneen eh, yëpp lay eh, autosaisir kay. man ndaw yo tamit. mais mon frère le député à l'Assemblée nationale il est irresponsable. waaw man ndaw yow tamit. Ah, ah, ah, je parle de Sonko. man ndaw je parle na ubbi enquête man ndaw. na hein? procureur ubbi enquête man ndaw may ma wax la. mais naturellement. c'est-à-dire bu amone tay nee naa la la du ci jot. c'est-à-dire c'est l'information c'est entre la banque les autorités judiciaires et la présidence de la République. c'est-à-dire foofu les tourner du ñëw fii gis nga loolu su amoon le lendemain c'est le procureur de la République qui organise une conférence de presse toog teg affaire bi mais quand même tu, tu penses réellement non xam man man nee ne dama ci sax dama am lu metti parce que xam nga franchement c'est-à-dire c'est-à-dire Matar ma fait perdre du temps ci loo xam ne nii man non xam nga gis nga am na loo xam ne si tu maîtrises l'information financière hmm. wallahi azim yenn yi sax doo ci wax c'est-à-dire même yenn yi soo ko déggee sax da ngay romb dem mais quand tu penses que nag ni nga mën a demee ca boutique ba daan naar bi dencal ma sama dix mille vingt mille francs noonu nga jàppee ne peut nit mën na kii lool alors yow mi nga wax yow leer na li nga wax du dëgg. sëñ may ma tamit nag jibi waa tamit d'accord doo financier mais waaw d'accord mais ma rek may gën a jibi yow tamit sëñ jibi ah, xam xam nga non le mais dama ne cest dire xam nga moom boo déggee sax argumentaire danaan yéen yéen Guy Marius Sagna et consort yéen yéen a fi jiiñ xawma Aliou Sall bu mënatul génne yéen wax ne ñun ay sàcc lañ yéen tamit bii donc li nga doon léegi contrefaçon rek. Hmm. et puis c' est c'est-à-dire c' est un fait divers pour divertir les gens. d' accord que les gens man man de li ma leen wax nee naa leen. Hmm. man même waa Benno yi li ma leen di considéré li ma leen di conseil mooy. Hmm. faites focus sur vos parrainages yéen waa Benno moo gën parce que xam la ça vous fait perdre du temps te duñ ci am dara. waaw parce que 3 millions waaw waaw moom laa ne nañ ko ne ak seen i 5 millions sax parrainage. ba <laughs> que légui war nañ egg chiffre 5 <laughs> millions donc ñom nañ def focus sen parrainage mo gën. d'accord xam la ah. légui quand les gens disent que wëy Sonko ay. plainte pour pour pour faire quoi plainte pour faire quoi plainte de plus Sonko sept plainte am ña ngay nelaw fële de ba légui sept plainte ba légui motax mané xam nga même sëñ Matar. mom bo commencé ci mom rek mom la ko sëñ Moustapha Cissé Lo wax bobu man de bu ko leeraloon ba paré vraiment ñu bi mané ko leer mais xam mom dafa am benn mbir mu ci tek ci kawam te ba légui seigne bi waxu ci dara mom la la wax xam nga gis nga taxaw di wax parce que simplement tu penses que tu as l'immunité parlementaire tu as l'immunité présidentielle parce que tu appartiens à un régime ou peut-être on a érigé l'impunité en en en dogme sou la neex nga wax parce que dara du ko ci fekk auparavant des gens sont passés ici lan la Sori Kaba waxoon mom da ne ay mallette de Russie. Mhm. Ousmane Sonko en a reçu. je passe par les Oil récemment à la 7TV qu'est-ce que Mout Ban a dit des cadres de Pastef là affiliés à des qui salafistes bénéficient xaw encore de nangam nangam ça fait pchit encore c'est-à-dire que finalement bu ñu bulle la xam bulle moom day rafet ne rek peuf Mm. bi aussi bi lay nekk rek les gens ont mais man li ma métti c'est-à-dire on a héroïsé Matar te Matar loolu bëggoon on en a fait un héros et cetera mais Matar moom leer na ko ne jusqu'à l'extinction du soleil moom Matar xam na ne xool la muy wax non. mais Serigne bii du jàll de. non bii du ñëw rek jàll euh, parce que dañu laal lu sacré par contre. waaw man xam li ma ci metti nag. non non c'est-à-dire non c'est-à-dire li ci metti mooy. waaw moom laa li ci metti nag mooy.